asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu nuyuwaat leen e, fii mooy baabu salaam nga am baabu salaam bi jàkkaarloo moom mooy baabu jibril e, baabu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam boo daan dugga da daan duggee fii wala mu duggee si e, baabu jibril baabu jibril moo gënoon na jegeñ fi nga xam ne mooy néegi yaay Aïcha ah moy benen bor bi la inshallah allah bu tamit nañ leen ko woon e eh, allah yonent bi alayhi salaatu salaam wax na bii mooy baab gate number 1 ñu tudé ko babu salam babu salam ñëpp xam nañ leen moy salam salam moy peace jama ma sha allah so comme ni mako waxé rek ñëpp julli nañ fajar ni ñi ka duñ debu bugg a sax xam nga sof ma sha allah environment bi eh, ñëpp a ngi ñaan ñëpp a ngi kontaan fii madinatu rasul fi nga xamee ne bi alayhi ma indi le hadis hadith bo xamee ne yonent bi alayhi salaatu salaam fii la ko waxee won muy hadith bo xamee julit war nañ bi alayhi ne la yasuddu rihal illa fi salasa. masjidi haza, wa masjid al haram wa masjid al aqsa mbokki juliti dañ wara xam suñu diine bu baax a baax yonent bi alayhi salaatu mu ne kenn si ñun warta takka sa bagage ne yaa ngi ziyaar yi ziyaar islam ba mu des si ñetti place place bu njëkk bi mu ne si juma suma jumaa bi fii masjidi haza muy loo xam ne yoon daf ko digal mu ne jumaayam bi fii moom la nit war a taka bagage ñëw pour ziyaare fii mu ne nga julli fi benn julli yàlla fay la ko one thousand junni yool junni yool one thousand reward mu ne ak fan masjidil haram muy fi nga xamé né moy makkatul mukarrama makka nga julli fa bena julli yalla fay ko téeméeri junni hundred reward tatwan bi moy baytul maqdis baytul maqdis moo nekk jerusalem Fi mo ñetti place yi nga xamé ne fofu baytul maqdis nga julli fa bena julli yalla fay la juromi juromi téeméer five hundred rewards Li ñaari ñetti place yi la yunus sallallahu alayhi wasallam ken kenn warta dem tukki tukki eh, ziaré jaamu yalla bu lu ñetti place am na nag luy xam mu ngi dem on lu bari loo xam ne ñaa ngi ko foog ne place bi war a dem ziyaare ji la di fay ay xaalis di fa dem mooy eh, fi nga xam ne mooy Maroc waaw Morocco eh, espitali eh, naka tuddaati Faas ni ñaa faa dem jàppe ko ne ziyaare jaamu yàlla la waaye du ziyaare jaamu yàlla di salaa moo ñu leeralal ñetti place yi mbokk jullit yi mooy sunna bi nga xam ne moom la yoon sa jàngale te ku toppa sunna yoon sa salaam yoon sa di nga am yool ku ko la toppa ku la si waaye ku yóbbu nit ñi ne yaa ngi yóbbu nit ñi eh, Faas wala Morocco pour jàppee ko ne ziyaare jaamu yàlla la yoon sa salaam waxu ko am na yeneen place yoo xam ne ay saxaaba tëdd nañ fa ay famille yonent bi salaa salaam tëdd nañ fa waaye waxut nañu dem ziyaare ji foofu fii la ñu yonent bi salaa salaam ñu ziyaare bokk jullit yi mooy Madina Maka ak baytul maqdis ñetti place yi la muy loo xam ne amul ben place bu ko mel ci kaw suuf bon ñu ngi fàttali suñu bop di suñu mbokk julité nit mun na dem Morocco dem pour holiday waye pour ne yaa ngi dem ziaré jaamu yalla té gis na yu bari yo xamné mu fa xew ndox dem ci bir jumaa ji di ñaan ci ndox bi subhanallah yu bi sax waxul lolu lolu mun na dem sama yaxa sa jëf yu baax yi nga doon def mbokk julité nga dem ci jumaa ji nga julli ki fa tere ñaanal ko yàlla yërëm ko yàlla xare ko arjana kooku loolu la soxla si yow waaye kooku mënut a faj sa soxla waruloo faa ñaan soxla so lii dañ koo fàttali suñ boppa ko fàttali mbokk jullit yi ndek luñ enal suñ boppa moom lañ leen enal mbokk jullit yi xëy yow mal qiyaama suñu yàlla laajee ne lu tax waxulee woon te ñu waroon a wax day a ah, bu boobaa nag ñu am lay loo tax ñuy wax loo xam ne suñ jëriñ la ak seen jëriñ du dañoo naka tuddaati weedi wala bugguñ kii déedéet jàngale yonent bi aleyhi salaatu salaam dañ leen a wax fii bon yàlla ñu yàlla woon dëgg ñu xam ko te toppa ko yàlla ñu yàlla nangu suñ jaamu yàlla yi ñu ngay ñaanal ñëpp ngi madinatu munawwara fii la yonent bi salaatu salaam taxawoon di wax hadis bi bon maa ngi fàttali suma ba di leen fàttali wax yonent bi salaam bi nga xam ne rawdu maa ngi ni suma gannaaw fii la rawdu bi nekk sallallahu alayhi wa sallam insha allahu suñ fa duggee yëpp nañ leen fi indi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu